pour bu set boo ko mënta fay lam la ji nga kat sa nday tay sag ngeen kat seen tok sen seen c'est quoi vous faites chier les gens je m'en fous c'est la première fois ma saagate ma ndayam tay da ngeen a soof waay vous êtes là à à à à vous marier des arrivistes comme vous moi je ne suis pas comme vous hein Beaucoup ak yéen bokkuma ak yéen te mënuma bok ak yéen ma len gën fu ne bokkuma ak yéen duñ bokkuñu sax manam duñ ben sax

Il sey que sa jëkkër ces écouteurs. écouteur les bras il a écrit la lettre elle est là